ñu ngi ba léegi ci mariage bu Codou l'actrice de série famille sénégalaise bi ñu fekk nag c'est l'une grande actrice sénégalaise paysage xanaa cinématographie soxna bateau national dañu ko tuddee c'est très rare ngay gis actrice bu ñu jël national bi ci métier donc moom nag Sénégalais dañoo bëgg ndax dañ ko dugal ci seen biiru xol soxna bateau ñu ngi lay nuyu ñu nekk ci mariage bi seen collègue seen ay seen Yàlla sàmm ko bàyyi ko du baaxul baax na solo baax na baax waaw macha allah jàmbaar la ndax léegi jàmbaar tax na mu def def li nga xam ne wax naa ko tout à l'heure avantage yi série yi am moom mooy nit ku baax xool la bëgg la ba tàgg la ci tendance la léegi euh, boo joué série quelque ah, premier saison sax mu am chance ñu tàgg la yéen ñu nekk ci mbir mi léegi loolu lu ko waral lan ko nan ngeen ko gisee ak observation ngeen parce que léegi parce que léegi actrice rek la ñuy tàgg ah non non nekkuñu actrice que da nga actrice wala seen mariage siiw waaye ñëpp la ñuy tàgg mais lan mooy secret bi ne série boo joué benn saison rek ñu ne heure ménage non amul secret sëy moom bu jotee rek yow sëy moom bu jotee rek xëy na yàlla dafa dogal dafa dogal ci ñoom moom da ngeen di fecc ba pare doo ko am nag seen le bés bi di gisee loolu la rek sëy moom la rek yow. soxna Bator yow yaay première actrice bi joué rôle bi nga joué mooy nit ñi jël a jéppi wala nit ñi jël a bañ mais teewul boo génnee nii naturellement nit ñi dañu laa jàpp loolu lan moo ne parce que li ngay joué moom mooy ba mu juddoo ba léegi mi ngi koy xaar moom mooy ñu may ko borom kër mu sëyi donc Codou euh, par ma voix toute la presse tey ñu ngi lay nuyu di lay souhaiter heureux ménage euh, tey ginnaaw bi nga xewlee gis sa nawle tris donc yan njëkk naa leen bu baax a baax a baax a baax ah, xanaa dama kontaan rek ndax ku nekk amoo lu dul sa bis monsieur Sarr. fan ngeen xamante ne ñaar seen rencontre. kan moo njëkk a ko ba sa morom. kan moo njëkk a bëgg sa morom ah? moom moom moo njëkk ko fan leen gisante. bu fekkee dama àndoon ak sama benn xarit. par la suite lañ gisante nii vite fait. ndekete boobu moom yàgg na ma gis. yàgg na jooy si yow quoi mu laaj la a abordé la woo la waxtaan ak yow. waaw fekkee jooy no non. ah boo jooyee ma woon ci moom d' accord sa jëkkër euh, góor yàlla la yan qualité nga gis si moom ba mu doy la nga euh, am yéene doon soxnaam tey. waaw kooku nag nee naa du sama borom kër sama sama xarit la. sama frère la. sérieusement ndax taxawu na ma fu nekk. man ak moom ba ñuy ànd dara doon dara la ba tey jii dara doon dara mu ñëw fekk ba may business nekk ci sama liggéey daf wàññiwul dafa yokk sérieusement. moo waral tey jii ma kontaan bu baax ci moom mu yónni ay mbokkam ñu ñëw ñaan si ma ma fas yéene koo sëyal sëy bu rafet jural ko njaboot gu barkeel. macha allah macha euh, ku wax ko du xam ko ci millier cinéma donc euh, mu doon milieu boo xam ne euh, concurrence bi bëri na milieu la bu xaw a rude donc xale yu jigéen ñi ci nekk yëpp yàlla mi ngi leen di teral ñuy teel a am jëkkër ban secret moo nekk ci jouer série ba ku ko def rek boo defee première saison avant deuxième saison sax ñu am sens su dégg alxayri qu'est-ce lan moo nekk si ginnaaw. waa série yi xam nga visibilité la visibilité la aussi tamit genre tey ji du série yi la ñuy rek am borom kër mais ah borom kër daal lu yàlla di tudd lu yàlla di tudd parce que période bii nii yëpp actrices yi rek la ñuy maye bañ nañ ba léegi xale yi sax dañ naan boo feeñul si série yi duñ la takk ñoo xew defim ne actrice yi quoi waaw xam na ñun ñoo xew. tendance la wala wala wala wërsëg la bu yàlla ubbi ci jigéen ñi léegi. waaw yàlla ñu gëstu rek yàlla ñu gëstu rek. actrice tamit xaar nañ lu yàgg yàlla ñu gëstu rek. Euh, euh, naka nga gisee sa nawle actrice yi gis naa fi ñoom bébé Eva gis naa fi euh, actrice yi nekk ci série sénégalaise yëpp bàyyi seen yite tey la dimanche ñu bëri dañu doon reposé mais ñu ñëw tey teewal la donc lan nga yëg. waaw yëg naa lu lu foor a foor yëpp ñoom bébé ba ñoom ñëpp képp bépp artiste bu fi teew rek maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant parce que temps yombul temps yombul la sa fait que tey jii ak dimanche bi mu xatee ñoom ñëpp ma tourné gis leen dama kontaan. sérieusement. bi ñu nee takk dañu lay maye ñu ne sëyu célébrité euh, sey parent lan lañ la njëkk a yeddee parce que fii au Sénégal euh, c'est devenu une tradition boo siwee rek ñu ne sëy ba ñaanuñ ko yàlla nangam ak nangam am ay wax yu ñu wax donc du ñàkk am na ñoo xam ne doon nañu sëy ci seen ay waajur yow nga nekk si milieu showbiz euh, bi ngay sey si dégg nga kàddu yooyu sëy sëyu célébrité nangam ak nangam yu mel noonu boo koy dégg dalay galvaniser galvaniser wala dalay yokk motivation pour nga gën toog ci sëy bi donc yan ngay def ci loolu yow non man loolu su ma ko déggee daf may gën a motiver pour ma toog ci parce que le fait que ñu ne ñu naan jigéenu artistes yi duñu sëy jigéen soo bi duñu sëy loolu ça me parce que dañ bëgg nañ sëy sii si pourquoi duñu sëy dañuy say ba mu neex dañuy sëy parce que dañuy wax ku nekk ci showbiz du am temps wu sëy du am temps wu ah, toppatoo jëkkëram ñu ko tax ñu day fekk sa la rek man moom yàlla def na ne man sama borom man sama xarit la moom moom moom si ma waree dem tournage sa fajar la may yee. 6 heures du matin la may yee jugal nga sangu nga dem julli préparé nga dem kon kooku comprendre na ma bu baax a baax ndax maa ngi koy tooñ un jour ma naan ko soo ma takkee de damay damay arrêté filmer mais dafa mel ni comme ku tiit kaa ngay arrêté. kon kooku taxawul pour tere ma sama la yow ci métier bi moom ci métier bi la nekk la non nekkul ci métier bi euh, euh, bu ngeen waxtaan daan na la wax doon na la seetaan di jooy ci yow yu mel noonu naan la dama la doon seetaan di yàqam ci say séquence di ñëw parce que yénn saa nga nopp nit ki di ko kot ci série bi te doo gis séquence am est seen seen di ngeen bokk waxtaan yu mel noonu daan nañ ko waxtaanee si la loolu ay soo feeñu loolu damay zappé yooyu <laughs> yàlla la dem di làkkatu. nee na du daaw ko dafa daan te seetaan. mu naan gel bii nii regardam daf maa neex. léegi nag mu dem ba seen wàkk remarqué ne moom daf may bàyyi xel. mujj gi bu koy seetaan day dem ci biir. làkkatu <laughs> d' accord donc moom dara faawoon avant mu lay nopp. waaw moom daf ma faawoon parce que ma doon topp fu nekk. moom fu ma dugg ma dugg. emploi lan ngay wax sa nawle actrice yi nekk ci métier bi euh, yàqamte lu mel nii am na ñu siy dugg sax pour sëy comme on dit rek jeux chéri yi léegi opportunité bu ci am mooy mën nga ci am xaalis c'est bien mais mën nga ci am jëkkër ju baax comme mën nga ci am jëkkër ju bon am na ñoo xam ne sax dañ siy dugg pour am jëkkër lan ngay conseiller jeune génération bi nga xam ne ñu ngi si yoon bi di di bëgg loolu no non bu nekkee ne ci ci genre série yi jëkkër moo leen ciy dugal man je préfère ñoom ñu bañ parce que jëkkër du du da ngay ñëw ci série yi wane sa bopp rek percé rek ñu takk la non non non non góor yor na ay milliards te tëyewu la góor yor dërëm boo ko ko ak yow comme xam nga kon du du da ngay dem jouer ci série rek du da ngay dem jouer ci série rek euh, genre da ngay da nga war a am jëkkër forcément man sama jëkkër nekkul ci milieu xamul milieu jouer waar ñu fenn ma terewul gis na ma gis sama personnage mu ne ko mu takk ma kooku sama xarit la sama yaay moom bu leen sax teel a laaj parce que damay yàq sama maquillage ko jàmbaar la sama papa aussi ku ko xam ci milieu bi xam na ni ku am fulla la ku am fayda la te mu ngi waaj a retraité ci liggéey bi te kenn mësu ko cee dégg du lu ñaaw du lenn loo xamante ne ni lu mu ñun ñaar ñoo doon ànd di dem tournage di yenn suba ba ngoon jot man man su ma gisee sama papa nu muy dundee damay gën a defaraat samay toogaay parce que sama papa gisuma ko ci lenn lu ñàkk fayda barki alxuraan xam nga góor nga nekk ci yenn yi tey jii doo ànd ak sa doom di yendoog moom tournage suba ba guddi jot xam nga li ma la mais sama papa sama papa sama papa nit ku baax la billaahi wallaahi wal daal nit ku baax la nit ku bëgg njaboot nit ku mën a sonn ndax njabootam ñun bañ sama yaay danaan ko dangaa ragal say doom ñun lu ñu bëgg bëgg na ko lu ñu bëgg bëgg na ko waaw ah, moo waral moo waral sànq ma tuur rongoñ ndax sama yaay jàmbaar la résisté naa ba sonn mais mënatuma woon moom dafa dund lu nekk muñ lu nekk jaar fu nekk ndax ak njabootam tey jii bu demee ba ba tey bis bi ñuy takk doomam jour boobu ci lay tuxu di dem ci këram gu bees macha allah yàlla na sant yàgg démb metti woon na torop mais tey jii yaakaar naa ne fii nii ku ko fi ñeewul ñeewu fi kenn lu ko naqari woon ay doomam teg nañ ci loxo sama yaay dafa nekk jàmbaar sëñ bi jàmbaar loolu loolu tënk na ay wax barki sëñ dinaa moo xam ne sëñ kat dëgg dëgg dëgg dëgg muñ kat man moom man man lu yënd ci man fanaan sama yaay man loolu àddina xam na ko lu yënd ci fanaan ci sama yaay wax na bu ngeen ko déggee micro bi leen ko wax man cerax sax bala ma koo jënd damay laaj sama yaay ba pare loolu moo ko def ci man ba ñu gënee nekk xale ba ñu mësaan a tëdd dañuy tëdd nii mu tëdd suñu ginnaaw jiital ñu di ñu yett ba fajar loolu c'est très important na ko waajur bi ak di ñu yedd ba fajar wallaahi azim man ak samay rakk loolu yar la waaw loolu yar la xaaju guddi la sama yaay di wax ak ñun ba fajar ba tax na man su ma demee penn sax bu ma bëggee bu ma sax ma xalaatee sama yaay damay defaraat sama toogaay day sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek yéene naa leen lu ëpp loolu kër lañ kër laa def tey suba yéene naa la neen incha allahu rabi. merci beaucoup merci merci